sa xam sa tey xam sa tey une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey ana ku nuy waxtaane tey danoo bëgg a waxtaanee ku tedd ku sell danoo bëgg a waxtaanee puso ku yoroon pusoom di ñaw diggante yi dañoo bëgg a waxtaanee kilifa diina gu mag gu taxoon réew mi am jàmm boroom xam-xam borom juddu bu rafet ana kooku mooy kan El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall mu sell mi El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall boo ko tuddee mën a wax ne Nioro du Sahel fële ca république bu Mali fa la ganee àdduna 1862 ana kuy yaayam xanaa soxna Aysatu Xami Soxo Nourou Tall di baayam Nuuru Taal moomu Cheikh Omar al Taal di baayam Nuuru Taal it boo toppee néegu ndeyam sëtu Mohamed Bello la nga xam ne moo doon ñaareelu buuru pays réew mu rëy moomu ñu naan Sokoto te bi muy agsi ci nguur gi dafa fekk baayam bu tedd ba di Ousmane Dan Fodio génn àdduna 1817 foofa la bokk. kon tedd ci ndey tedd ci bàyyi màgg ci ndey màgg ci bàyyi Seydou Nourou Tall mi gàddu àdduna ñaari at la am El Hadj génn àdduna waaye ni mbokk gi tëddee ak ni mu màggee ak ni ko yaree tax na mu am jikkoy puso ba doon ki nga xam ne mooy ñaw diggante yi looloo tax mi wéyal liggéeyu ndaje ak yaatal bi maamam doon def looloo tax liggéey bi maamam doon def te kenn mënu koo natt ndax yaatu ak yiw mu téye woon ko ci loxoom ba def ca lu yem ñépp Seydou Nourou Tall Thierno Thierno la waxtaanee tey ñu ne Thierno nun ko waajalee ñu ne xanaa jàngal ko jàngal ko njàng mu rëy ñu ne nun ko waajalee ñu ne fexe ba mu mokkal xam-xam te teel koo xam ñu ne nun ko waajalee ñu ne fexe ba mu jekk alxuraan ak jikko yu rafet yi ñu ne fu mu jàngee ñu ne fépp fu borom xam-xam bu mag newoon ca jamono ja teg na fa tànkam ñu ne ñu limal ñu ne xanaa du moo demoon Medina Xaso xanaa moo demoon ca. daara ju mag ja nga xam ne Cerno Amaat Ka na ko yoroon ca Boge xanaa du moo demoon kon ca Amadou Mokhtar Sakho xanaa du moo demoon Kita ca Cerno Mamadou Olal ñooña di ay kàngam kenn ku ne mu jël la nga yor waaye nag bu nu fàtte ne ci wut xam-xamam ci bëgg xam yàlla ci bëgg a jege yàllaam El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall dafa solu dàllam doon ku ndaw ci ay doon xale boo xam ne àdduna soxla na ko doon ndaw loo xam ne àdduna dëgmal na ko mu wan ko ginnaaw dem kaay wan ko ginnaaw dem ndar wan ko ginnaaw dem tiwaawoon ana kum fa fekk ku tedd ku màgg ki Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu waaye déggal déggal ginnaaw bi mu ko solee la koy sol ba pare déggal seede bi nga xam ne maam Alaaji Malick moom la seede ci na Seydou nuru taal nga xam ne moo ko jàngal wala boog bokk na ci ñi ko jàngal Maam Alaaji Malik lii la wax nee na booy seet sama digg sama diggante ak Thierno Seydou Nourou taal boo koy seet seetal la doxoon ca diggante yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak Aboubacar ndax man booy xool sama diggante ak Thierno Seydou Nourou Tall jàppal ne la Aaruna ak muusa séqoon la séq ak moom xol bi seede bu rafet ku màgg doo dégg lu màgg ku defut lu rëy doo am bi seede bu rëy waaye nag bi muy jàng Seydou Nourou Tall yamul rekk ci jommal àdduna ci mokkal alxuraanam dafa xam mbootu alxuraan xam mbootu grammaire arab xamit li diine di tekki ak yooni atte xam kon mën na ne moo gàddu ndono li ndonal kan ndonal El Omar ana nu ko gàddoo xanaa doon puso di dox ci diggante yi di ñaw ba fépp fu njabootu El Omar Tall nekk mu dajale leen ba nu xamante di jokkoo ana fu nu newoon ñii newoon Sénégal ñii newoon Mauritanie ñii newoon gine ñii ne woon Mali ñii ne woon Nigéria fépp fu nu ne fexe ne ba nu xamante fexe ne ba nu gindikonte El seedu Seydou Nourou Tall mu daan dem day mel ne fa dëkk xool ko Tiwaawan ma nga mel ne fa la juddoo fekk ko Medina Baye kër Cheikh al mel ne fa la yaroo fekk ko Medina Gunaas mel ne fa am kër ak feneen ak feneen waaye waaye booy seet rafetu diggante ah waaye booy seet rafetaayu digganteem ak jokkalanteem ak jëflanteem xoola digganteem ak njabootu maam Seydina Limaamullaahi xoola digganteem ak xalif yi toogal Serigne tuubaa ci gannaawam boo fa demee danga naan lii cere ak soow la boole naan walla boole tuur waaye kéemaan ga kéemaan ga ma ngi ci digganteem ak Hyacinthe Thiandoum cardinal bu mag ba nga xam ne moo doon njiitu jàngu bi seen diggante xaritoo ga ca amoon dafa yéemoon ñëpp waaye kii li nu war a xam mooy digganteem ak képp ku yàlla jox téere tax na ba tey bu nuy wax naan déggoo gi am ci diine diiney lislaam ak diiney kercen defe naa ne kenn ba ko yenu ba réew mi am jàmm amuk dal mën nañ jàpp ne Thierno Seydou Nourou tàll waaye gis-gisam bu rafet waaye may gu ko yàlla may ci bu waxee ñu déglu ko bu ne eey ñëpp ne gongo moo tax mu liggéey ba réew mi am jàmm xam nga fekkee ñaari guerre yu mag yi fekkee xeex bu métti bi nu xeex ngir jot sunu bopp fekkee jànkonte yu mag yi am ci diggante way politique yi du Nourou Tall jëngut yàqut ba tax ci jamono booba gouverneur généralu Afrique occidentale française muy Afrique sow jant bi gouverneur tubaab ba fa nekkoon ak gouverneur yi nga xam ne ñoo newoon ci gox ya goxaan yi ak commandant de cercle yi kum ci wax nga dégg te du la jay te du la bëmax. Jama Seydou Nourou Tall ba doon jàmbaar ji daan aar askan wi nga xam ne li ko ñoroon mooy ñu fexe ba ñoom ñépp ñu am seen wàccuwaay kon sëriñ bi Futanko bi bu doon tiit ci moom ngay ñëw looko ko dey mu dey ko buur bu dee soxla ñu faj ko te nag du wàcc ngorom du jaay ngorom kon mën nañoo jàpp ne keroog ñaari fan ci weeru juin 1979 bi àdduna bépp daje kilifa yépp daje comme bële di njàllu nga xam ne moo tax podoor daggatuloog suuf ak il a il a morphine lu ci bëri keroog bañ ko koy tuddee maam Abdou Aziz Sy mi nga xam ne moom foo daan wax ne mu ne ñun ay taalibe yi waa kër maam Alaaji Cerno moom lañ ma nga fa woon maam Dabax si Malick yàlla na yàlla yokk leeram kon nanu jàpp ne waaye doole yi ci lan daan jàppale te daaw ci sonn mooy El Hadj Thierno Seydou Nourou Tall moom nag def naa ne kenn dootu ko fàtte moo tax lycée bu mag bi ci Dakar ñu tuddee ko ko dundam gépp njariñ la moo xam ne nag moom moo doon ambassadeur u njabootu El Hadj Omar moo tax bi muy génn àdduna ñaar fan juróom ci janvier 1980 ci ndakaaru yàlla jagleel na ko téeméeri at ak fukk ak juróom benn waaye tey ndonoom laa ngi fi ndonoom ñoom fii ci sawye bi boo demee ca wetu géej ga ca corniche ba da leen fa fekk ci seen rafetaay seenu yiw ñuy dundal lislaam ak def jàmm xam sa démb xam sa tey El Hadj Thierno Seydou xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane fay ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut